cheikh si nga xam ne tey ñoo fi wuutu seeni wayjur ak seeni maam ñi nga xam ne ñoo àndoon ak Cheikh Mouhamadou Moustapha radiyallahu anhu gannaawam ñu ànd ak ak njabootam tàmbalee ko ci seen Cheikh Mbacké Gaïndé Fatma radiyallahu anhu ba ci sa jotaay bi ñuy ñaan suñu sa bi yàlla na ko suñu yàggal ba lépp yéene ci diine ji yéene ko ci yoon bi waaye yéene ko ci ëttub Seex Muhammadu Mustafaa suñu borom may nga liggéey ko doon ko bëggee ba kawe sa jot te ànd ko ak kon mboolem ñi nga xam ne ñooy cheikh si ñu ngi ànd di yeesal seenu njëbbal ak seen kóolute ak seen yaakaar ci yow ak sa njaboot gépp nag tàmbalee ko ci seen Cheikh Madina mi sës ci yow ba ci gën a ka ca gën a tuuti moo xam muy góor moo xam muy jigéen kon di yëkkatiwaat kàddu rek niñ ko baaxoo defee muy kàddu yi fàttali fàttalante sax wax ak soññante du doon kàddu yi fàttali ak soññe waaye day doon kàddu fàttalante ak soññante ñu laxasaayoon bu baax baax rek ci liggéey bi nga xam ne ñun ñëpp dañ ko fee fekk muy ndono lu ama am solo loo xam ne dañ ko fee bàyyi jóge ci suñuy maam àndoon ko sëriñ bu mag bi ñu di ko jokkalante di ko jokkalante bi ci jamono jii sëñ Ahmadu mii suñ borom teg ko ci suñ kanam ñu war a taxaw taxawaayu mag ña ci gannaaw si Ahmadu Mustafa ak njabootam taxawaay boobee tey ñu war koo taxaw ci gannaawam te mag ña rek kenn ku ne xam na ni seen taxawaay matoon na sëkk joxe war nañ seen lépp te bàyyiwuñ ci dara te yàlla rekk tax te daray àdduna taxu ci waaye bañ defee ba am ngërëm lam leen jural ñun ñëpp ñoo ngi koy dund tey ñoo ngi cay dund te loolee mu leen jural te ba mooy barke bu leen ca topp ak njariñ loo xam ni kenn ku ne ci ñun mën ngaa dikk taxaw fii waxal ci sa bopp loo xam ni yow rekk ko xam loola kenn ci ñun amul ci sikk sëriñ bi yoonu nan suñu lépp barke baa muy jóge fu xiiwal yaa muy jóge fu ne ci luñ foog ak luñ foogul kon liñ ñu doon dig moom demagul ëllëg waaye fii ci àdduna gis nañ ko leer na nañ amatul sikki sàkka waaye loolu it ci dañuy xame ni ki am nun la jëg fii ci àdduna am nun la jëg ëllëg nga dox ba teg say bët teg sa loxo te lam nga doon dig ci àdduna ci ngay daal di war a xame ni lam lay dig ëllëg noonu lay dem waaye nag kon mu des lan sàmmoonte ngor sàmmoonte ngor ak jom ba tax ci gàttal niñ ko waxe woon waxtu bi waaye nag ñu gën a góorgóorlu waat rek ci gannaaw sëriñ bi di lépp lu mu digle ñu ne bu diglewul sax ñuy làmbati lañ jàpp ni mooy doon mbégam loolu la maa ngi woon a àndoon ak kilifa yi loolu buñ ci jóg barke bi moom ñëw na ba noppi waaye nag dañoo war a sàmm ndono li ba wuy ji mag ña kenn ba nga xamee ni kenn ku ne ñu ngi natt say àndaar nu bokk ca nga xam ne seen àndaar day mat sëkk di bégloo seen kilifa di bégloo mbooleem ñañ àndaloon kon loolu daal mooy soññ bi ñu gàttal ko di sant ñëpp di gërëm ñépp sëñ bi sëñ Abdul Qadir xalifa sëñ Daaru Asan mi ngi moo yebal sëñ Moustapha moom mu di jëw di ñam sës ci moom ngir mu ànd ak ñun ñu ñëw teewe jotaay bi ni ko laa def biñ dikkee fekk nañ fi Cheikh si ci njiital seen Xaadim Gay mi nga xam ni sëñ Mbàkke Géey ngàcc mi nga xam ni moo jiite lu bari ci Cheikh si moom lay jox kàddoom dama ko ne woon sax jëlal kàddu gi tey ngir nga mën a jotal kàddu sëñ Mbàkke mu ne rek naa ko dimbale jël kàddu bi Serigne Diop Tàmbira ak mboolem ñu àndal ñi ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp yàlla nañ yàgg teewee jotaay bi nga toog ci kanam ñu toog